gendal loolu la loolu la bu fekkee fukki nit lañ ñeente yi ñoo dul ay mool mais ñi si des ñëpp ay mool loolu bëgg nag ñu souligner loolu daawuñu ko def bi pêche bi la ñu abandonné di wutali bitim réew mm-hmm. non pas abandonné parce que li ngay abandonné sax ñàkkul daf fi ne waaw mais géej moo am ay problème dégg nga problème licence yi passé nii waaw licence de pêche yi ministre heureusement ñu ngi koy saluer de passage parce que ñun aussi boo duñu wax ne amuñu kilifa mais am nañ kilifa état kenn du xeexam Hmm. état da ngay àndandoo ak moom buur da ngay àndandoo ak moom. Hmm. bu ñu àndandoo ak buur ñun xam nañ li war buur buur par exemple mbirum licence yooyu kenn waxu ko bu mu signé mais ni signé lu mu mën a contrôler. c'est-à-dire que buur day signé lu mu mënul contrôler mm-hmm. autant am na ay moment yu fi doon signé accord yoo xam ne yi dans les textes dañ bind ne autosurveillance mm-hmm. ñaar ñoo dugal si géej gi bàyyi leen amul benn surveillance nga ne yow ma sàmba del contrôler ma dem xam nga loolu aussi c'est des choses yoo xam ne ay ay du ay ay yoo xam ne dugal si biir yu si bokkul la mm-hmm. léegi nag li si nekk licence yooyu bokk na si li nga xam ne ñun mool yi ñu ngi koy jooytu beneen bi ñun aussi ñun mool am nañ benn responsabilité bu ñu si am aussi am na yàq metti mu ñuy def peut-être c'est pas l'objet de l'émission mais quelque part ñun suñu am na ñu joxoñ war a joxoñ suñu bopp nu ñu war a toogee ñun. ça na importance waaw ñun ñu war a toogee ñun. non waaw forme non respect code de la pêche. non respect code de la pêche mu ngi fii. beneen bi aussi les agents yi nga xam ne les chef de poste inspecteurs départemental régional yi joxuñu leen assez d'outils hmm. pour que vraiment loolu ñu saytu ko teg ci loxo xam li ñu war a def ñoo ñooñu on les équipe pas trop waaw ñu ngi liggéey nag. Mhm. mais de temps en temps déglu ñu leen. Mhm. te ñooñu rek la ñu war a déglu. ñun bu fekkoon par exemple ñooñu ngi doon liggéey normalement du soxla nga dem si ministre du soxla nga dem ci président de la République. Mhm. parce que ñu ngi la jegeñ ils sont là tout près de toi. te c'est des autorités. ils font partie de l'État. waaw ñooñu par exemple bu ñu leen dooleelu amuñu benn sañ-sañ. bu ñu laa dem dañuy au environnement. bu ñu laa dem dañuy au gendarmerie. ñoom seen bopp de en temps bu fekkee dëgëruñu trop parce que seen biir am na ci ñoo xam ne dañ taxaw ay inspecteurs yu taxaw. du ma fi nekk di suti ay tur mooy mois bi ma nekk si géej gi ba léegi ça fait bientôt quarante ans maa ngi si géej gi donc xam naa li may wax du ma fi cité tur parce que si télé laa ne mais quelque part am na inspecteur yu taxaw yoo xam ne dañuy jël seen responsabilité lii nga xam ne dañ koy gis mu dul yoon ñu ñu jële ko foofu donc loolu dafay am mais ñooñu dañ leen war a dooleel muy les les inspecteurs les administrés yi nekk si tefes yi mais nag xam ne mu ngi si ñun beneen bi aussi géej gi ay licence xajatu si mhm. waaw géej gi fi mu toll nii xam ngeen ne ab yabay juróom fukk lay jar actuellement. moo a jaaxal na si lu ñu la daa may. loo xam ne dañ ko daa yëkki may la ko. mais léegi benn yabay deux cent cinquante. nga xam ne amatul jën. amatul jën waaw léegi est-ce que foo amatul jën di nga jini jëggaani wuñu ci keneen nekk ñëwal napp si géej. Mm-hmm. warul nañ xaar kenn waxul duñ ko joxe mais dans l'avenir. Mm-hmm. nañ xaar defarwaat ñun suñu biir respecter code de la pêche code de conduite yi réglementation yi yooyu yëpp ñu tegaat ministr bi am na ko doy caxaa jare mooy comme li ma doon wax ne ñu ngi koy saluer ci décision yi mu jël parce que commission boobu nga xam ne mooy mooy assez mooy siégé pour wax waaw wala déet ñooñu par exemple bu ñu waxee waaw avis la ça aussi il faut le connaître dafa nekk du mm. décision non avis la dañuy saytu gis état géej gi waa kuréel ñu ngi si biir surtout ñooñu c'est la recherche quoi mm-hmm. ñooñu ñu ngi si biir commission boobu léegi ñoom bu ñu toogee def seen avis ne bon jamono yi kuréel moom li mu wax dafa leer yaa ngi ci biir yaa ngi nekkuma si ko mais am naa représenté ñun ñu nga sa biir benn élément lañ fa am à travers CONIPAS xam na dégg ngeen nga am de CONIPAS il y a huit organisation professionnelle yu bokk yu nekk au niveau du Sénégal yu bokk foofu donc CONIPAS googu moo gën a jegeñ mool yi donc am nañ fa benn représentant donc benn voix lañ fa am mais avis la ñuy joxe mais prise de décision ya c' est le ministre. waaw ah, dañuy joxe seen mais bii par exemple comme parce que def na lu baax. bu defoon leneen bu ma toogee fii dama naan ministre bi moo def nangam. Ah, fii ma toog nii je vais le dire. mais actuellement on le remercie parce que di décision bu baax la jël parce que ñële wax nañ ko bu ñu signé mu ne kon de damay respecter décision commission bi du ma signé. waaw waaw du mu am na non. pour signer yeneen yeneen yeneen kii benn moo si nekk reclassement benn. y' a y' a douze navires yoo xam ne yi demande yoo xam ne yi ne nu mu tëddee six yi neuf fii ñoo bëgg peli petit pélagique mhm. petit pélagique boo leen ko déggee mooy yaboy mhm. jënu kaw ndox yooyu ay oo ak yu demee noonu léegi yeneen ñaari mooy mooy démercial profond mooy c'est-à-dire xeetu jën yooyu ñu war a ut ci biir géej mhm. bateau yooyu aussi ay yàqkat lañ parce que dañu am genre plaque yoo xam ne bu ñuy ut jën boobu ñuy ut si biir xeer yi dafa affaire bi day dafay këlbati dafay këlbati xeer yi di yëngal remuer le pour jën yi daw dugg ci mbaal bi loolu baaxul ci Sénégal waruñu ko fi si signé beneen bi mooy reclassement boobu nga wax noonu moom dafa nekkoon ci si ci crevette la nekkoon dem si kaw léegi dafa bëgg dellu si waat ci crevette. Hmm. crevette aussi gis ngeen dégâts yi ñuy def gàtt bato yi di napp crevette ñoo gën a jegeñ tefes alors mool yooyu ngay dégg fiir nañu leen yàq nañ seen baal rey nañ fi ay mool yooyu bato yooyu ñoo koy def te c'est des c'est des ah sénégalais. c'est c'est des bateaux sénégalais crevettiers. li li fi ëppoon c'est c'est que fii la ñuy toog di rek dama dëkk bi aussi dañuy àndandoo nañ àndandoo bu ñu dañuy dem suñu yoon. c'est des bateaux sénégalais. c'est des bateaux sénégalais crevettiers yooyu lii si ëpp. Hmm. lii si ëpp laa lay wax nii bu dee fukk juróom benn yi c'est des bateaux sénégalais waaw. ça je le duñ koy wax waaw ça je le dis oto yi jegeñ tefes nii yi jegeñ tefes noonu yi ngay dégg côté Lombul bi jam jàpp Saint-Louis accident yi nga fay dégg wala boor bi yëpp en général boo seetee équipage bi équipage sénégalais la mais mais duñ ko wax dañu naan non moolu Sénégal yi rey nañ leen fii def nañ leen fii léegi du jaxase waat xel yi rek mais yéen ngeen ñu ko waxee ñu mën koo gëm jaxase xel yi mais les images sont là hmm. am na si yoo xam ne di image yaa ngi fi loolu par exemple am na nu muy demee dañ leen di jox ay firnde parce que léegi beneen bi aussi bi loolu persister ñuy wax naa ñeneen la du ñii léegi dañu wax jàngal nañ suñuy mool comme quoi que naka la ñuy localiser bateau bu nekk ci benn zone xam nga léegi nouvelle technologie y a des GPS GPS bi ngay jël ak sa photo jël image bu bateau gi photo sa bopp photo GPS bi photo yi ci bi donc c'est des preuves tangibles ok mandarga yoo xam ne dañ si teg baaraam ñun